tuuti rebondir ci Papa Ndiaye euh, bi nga xamante ni yàlla def na muy feccal ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour mais mm. dañoo gis benn déviation. Mm. boo xamante ni euh, bon day tourner autour ba tey ci showbiz mais ci beneen image. Mm-hmm. muy Papa Diouf. Mm-hmm. le leader de la génération consciente ñu ngi koy nuyu au passage. Euh, le ndaanaan de naanaan. le roi. Ah, waaw waaw dafa aay de. macha allah kooku ay octave am. chéri bébé. amul. Euh, bàyyi mu gis ne nag euh, nga nga nga nga ñëw nag la plupart ci biñ la gëjee gis ci Youssou Ndour ci moom nga nekkoon. Mhm. ñu ci bëri sax daal di dem bay insinuer que ne le fait que kii di Papa Diouf génn fa nga xamante ne mooy Prince Art moom moo tax yow tamit nekkatoo super étoile loolu tamit bëggoon nañ nga indi ñu ci ay ay leeral. déedéet Youssou Ndour. Pape Diouf benn idole la am ci woy Sénégal mu Youssou Ndour wax na ko fu ne jëfee na ko fu ne ba ñu bëri di ko ci tooñe te Youssou nduur daa bëgg Pape Diouf mhm. ndax nit mënu la nduru nduru lu nga koy bañ c'est impossible kon donc loolu mënul nekk mais c'est-à-dire ñoom waa presse aar ñoo war a xam seen rôle mhm. xam ni affaire bi du benn nit kese wala ñaari nit da ngay boole parce que Sénégal gépp lañ bokk da nga koy bokk ak Sénégal yi partagé ko mhm. xëy na lii waral ñuy wax lii nii man ak li ñu boole barki démb rek bi ma dem gaa mi ñoo ma yóbbaale man ñooñ dañ maa dañ maa bëgg xam nga lu tax bëgg ma ñoom ñoo la gën a xam ne damaa aay loolu moom du lu ñuy jeex xam nga loolu dafa fàng kenn du ko jeex mais c'est-à-dire mooy li ma la wax mooy man dafa am fu ma jëm ba ci fecci dama bëgg sama rakk yi gën a ñëw parce que man dama am fu ma jëm nit boo nekkee secrétaire ba ci yàgg nag doon ñaan nga yàlla doon patron bi nit noonu lay def. mais doo nekk rek ne fii laay resté fii laay resté. déedéet. kon yow tey la fait que Pape nekk feneen yow loo xamante ni maanaam bokkoo ci ñi ko ñaawlu yow da ngaa jàpp ne lu war a mën a nekk la pour mu dem def carrière solo. non loolu loolu mën na nekk waaye Pape li mu rawee ay moromam nekkoon ci label moo tax dafa am fu mu ko mhm. te gis nga sénégalais yi Pape sama cousin la Pape sama xarit la. Mhm. Pape sama mag la. Mhm. Pape sama fant la. wax na ko fu ne mën leen man maa fan Papa Ndiaye te loolu dama ko xam. mais affaire bi dafa tombé man damaa ay moom mu ay ci domaine am. Mhm. ngeen bokk ànd. waaw bu a ma faan ko. Mhm. man yenn saa yi nit ñi da ngaa da ngay téye sa bopp fekk na Pape ju ma sama bopp de fi dugg mooy garaaw ci way ma xam ni kii daf mi ngi am dafa am jom parce que ku nekkoon premier nekk ginnaaw raay. di ko xotlu mhm. amoo amoo amoo benn papa bu tudd Youssou Ndour amoo benn papa bu tudd Baaba Maal di reyante mais tey boo duggee këram daw Pape Këram gi yegg na ci ay presque milliards. macha allah yàlla na ko jig mu am ci yeneen ak yeneen ndax kër yi jeexuñu. Mm-hmm. du dëgg te daf ko liggéey fii xoot ñu ko xaar ko fi. loolu nag bu amee war nañoo mën a ànd ñun suba suba bu ma papa Youssou Ndour ne woon kar papa Ndiaye. Mm-hmm. dama la soxla damay dem parce que ñun ay sénégalais lañ. tegante loxo lañ am lañ xam. en plus ay ba pare tegante loxo mooy tax suñu musique bii dem. Mm-hmm. tey boo gisee nigériens yi dem indo yi dem xam nga cap-verdiens yi ñeneen ak ñeneen. seen musique avancée muy puusante. Mhm. gis nga fii fii ku war ku ki ki jiitalul ki yàlla jiital boo ko jiitalul. Mhm. yéen ñëppay kalewu. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg chéri fi may waxtaanee. mooy ki war a jiitu ku yàlla jiital. xam nga tey ñoo jékki-jékki ne ñun ñëpp dañuy xeex papa ngañ. mais papa ngañ bu ko yàlla jiitalee bu ñu ko xeexee suñu bopp la ñuy xeex. parce que day répercuté wut ñun mais ki war a jiitu dañ ko jiital ki war a topp topp ci. ñu ñëpp ñu demandoo. bokk na ci les règles de l'art li tax euh, maanaam. dund déedéet bokk na tamit ci les règles de àdduna de nangu lu ko maanaam bokk na ci liy noppal doomu aadama euh, noppal ak dundam euh, comme ni nga ko waxee mais ñu daal di ñëwaat tuuti ci group Thiou. Mhm. parce que bi ñu la gisee ngay dem solo dañoo toog ci yàgg ngay ànd ak yeneen ñaari nit. Mhm. ci mel ni ne Amady bajaan ak Ameth Thiou. Eh, bul tudd kooku de. ah dama koy tudd. Eh. lu tax dama ko tudd. xam nga yow invité nga ko fii te yéen ñaar dégg naa seen diggante. ah suñu diggante nu mu mel. ah ay li ma la xamal. day sama waay di sama xarit allah ragal dama eh, koy sosal de dama koy di sama waay ragal féete day xañ a wës man yéen ñëpp laa bëgg aw ma noonu. mais dañoo gis ne yéen ñëpp yéen a doon ànd. Mm. et mu rafetoon ngeen yàgg bégal nag sénégal yi ci ay spectacle yu yu inédit tubaarkàlla mais ñu dem ba ci yàgg séparation am mais tout le temps y a des critiques y a yoo xamante Euh, bu bàyyi koowul ci yow ma nga ñëw jógee ci moom ama di moom liñ naan du wax lu bëri mais dañoo bëgg a xam où est le bât fan fan fan la problème bi man maay tooj de man maay jékki-jékki rek yëgal affaire maay jékki-jékki rek ambiance si kawam mais nag bi non problème barke yàlla problème amul mhm. ci suñu xol yi mhm. mais fii nii ak yow ah. waxtaan bi bi problème am de mais am na sama doom la. moom nee na yow jarbaatam nga. waaw mais sama doom la. Mhm. doom mooy koo yar. Mhm. amet su ma musaan génn télé moom boobu xamul xamugul luy tele lu ma sol feccee ko. Mhm. bu xëyee day ñëw jël si ko kër ga daw wane ko ñam ni sol naa yëre bi Papa Ndiaye sol sama doom la. maa ko yoroon sama loxo dëkkal ko di ko dundal du ko solal wan ko nan la ñuy sañsee parce que magam moomu njëkk a bëgg. Mbay Saam. ndeysaan ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko kooku benn lañ. bàyyi bébé faa maa ngi ko nuyu bébé faa sama doom jooju. kooku laa njëkk a xam ko Ameth. Mm-hmm. après nag ma xam Ameth. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. Ameth sama doom la. maa ko yar di ko dundal ci sama doole. teg ko sama wet. wan ko yoon ba mu doon lii mu doon tey. loolu la yàlla dogal. mais maa koy maa koy maa ko yëngal. Ah waaw léegi lu tax yëngal bi parce que xam nga yow bu dee da nga koy yëngal yéen seen seen biir xam ngeen ne amul problème. Mm. mais sénégalais seen interprétation te yow euh, ni ma déggee ni nga waxee. nee nga yaay kilifaam ndax yaa ko yar teg ko ci sa wet mais am na nooy waxee am na nooy noo noo nooy nooy jëlee benn wax di ko wax sénégal yi dañuy foog ne le problème ci moom la la la féete et non parce que yow ba nga waree def def nga ba nga waree wax wax nga te ba nga ko waree soutenir soutenir nga ko. waaw loolu moom moo war. parce que yàlla loolu la dogal ci man parce que man tamit dama am ñeneen ni ma soutenir bi. man mii dañ maa jàppale mais non non wax yi ngay wax laa wax. di ko yëngal di ko tooñ yenn saa yi dañ ngay bëgg a maanaam dàq ginaar waxaale sa soxla. papa Ndiaye nañ ni. moom li mu doon ci man la dooree. moom ah, nanguwul lool nanguwul lool waaw mais da nga bëgg da nga dégg moom yow boo bëggee buzz bàyyil image am. bi ngay bi ko man maa tàkk xëcc ko mu ñëw ma ne ko kaay jaar ci yoon mi nga dem comme ay moromam. ah xam nañ ko nag ci réew mi léegi. waaw mais ah loolu laa bëggoon di. ne yàlla nañ ko gën a xaw. Ah, ah. loolu la loolu macha allah mais seen problème en réalité ngeen ne amul dara noonu noonu te ku toog clashante moromam. yaa ko moo xoolal eh looloo koy neexal. Ah, moo koy jàmb. <laughs> sama xarit bi xam nga du waa ëmb dafa yaru. te moom ndeysaan nangu na ni maay maay ma maay maay patron. mais c'est ça le problème ñoom ñaar ñooy ànd tuddante nañ doom. te du ñoom kese yéen cuun la woon ak kanaat. jiili jiili. Eh, eh. ñoom tuddante nañ doom. Eh, et que relation bi est-ce que bu rafetoon dëgg du gën a du gën a rafetaat ñu dem bay gis Papa Ndiaye mu ndaw ci ñoom ñoom ñii ñuy gis Papa Ndiaye bu ñëw ci njëlee. Euh, bu leen bu bu ñu naxante quoi. déedéet non naxante moom. am wax dëgg yàlla. problème bu dee am na. Hmm. ngeen toog man du ma la bu de wër na yàlla loolu hmm. loolu amul. Hmm. mais c'est-à-dire dafa am loo xam ne kenn du ko forcer na de. ku ci nekk li war a jaar ci ma ñam bi ñam bi nga lekk. mu doon mànniwu ci yow jóge ci yow dem ci sa soxna ba mu ëmb doom. nga war ko tuddee tur loolu du loolu du ci ñun de. loolu dogal ba feneen la. dogal ba feneen lay jóge am na sax ñuy dem bay insinuer naan bu rafetoon ñooñu ñu tuddee doom ci yow lay njëkkee ndax yaa leen dalal. waaw mais àdduna koo yeebu yewoo yow la njëkk gis. macha allah àdduna ku ye ko yee. bu yowoo yow la njëkk a gis. Mhm. mais barki sëñ Touba man boog man. Mhm. man de yàlla bindee na ma noo xamante ni. Ahmed bu amoon ay sato. Mhm. ma dugg ci néeg fecc ndax loolay sama fierté xam nga li gën a bon ci àdduna na man nag maa war a réussir nit jaar ci yow ba pare ñu gis ko ci yeneen loxo loolu sa gàcce la yow